la ca jiitu mooy mu xam yoonal gi suñu boroom tabaraka wa yoonal woor gi ñu war a woor shahru ramadan ndax looy def lu nekk te xamoo lu mu tege xamoo fu mu tege loola kon bu boobaa doo mën a ràññat le ndax aada la wala ndax ak jaamu yàlla la kon li mu war a njëkk a xam ne shahru ramadan woor ko suñu borom tabaraka wa taala moo ko farataal faratal go xamne saxna ci alquran saxna ci sunna yonnate bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom ne ya ayyuhal allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal allazina min qablikum laallakum tattaqun kor nek jaamu yàlla go xamne ne yi jitu won yeb xeet wu ci nek faratal nañ ko ci ñom yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yitam leral ko ci sunnam borom xam-xam yépp deppo ci nek gi mu nek faratal moo tax kon dafa bokk ci yi nga xam ne mëne su ko ñàkk xam ci diine lu nit ki jàngati jàngati duñu ko nangul mu ne dama xamul ne woor weeru koor farata la ñaareel ba su xamee ne woor weeru koor farata la weeru koor woowu ñu war a woor kañ la jamonoom kañ la ndax fee suñu borom def na rek faratal naa ci yéen koor kutiba aleykum siyaam la wax faratal naa ci yéen koor mooy kañ la ñuy woor mu del ne chahru ramadan weer wi ñuy tuddee ramadan ci ngeen di woor weer woowu nga xam ne ci la wàcce alquranul karim buñ ko dee woor itam ndax weer wi yépp la ñuy woor guddi géeg bi ndax bu dee chahru ramadan weer wi day dugal guddi yeeg bëccëg yeeg yépp mu del siwaat suñu borom tabaraka wa taala xamal ñu ne biir weer wi dafa am fuñ ci woor ak fuñ ci dul woor fi ñuy woore mooy fi tàmbalee fi fajar fenke ba ba jant bi so mu ne wakuloo washrabu atta yatabayyana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswadi min alfajri min alfajri fajar lay tàmbalee summa atimu siyama ila al-layl ngeen motli koor ga ba ci guddi ga kon li tàmbalee ci fajar ba ba jant bi so loolu lañuy wor waye la ca dess ci guddi ga fu jant bi so ba ba fajar di jot diggante bobu koor ne ku fi don di ci bir wer wi la loolu itam kon yërma day suñu borom la leeral gu mu leeralaat diggante bi ñu fiy woor ñeenteel ba li nga xam ne jullit war na koo xam itam mooy nu muy xamee ne weer wi tàmbali na ndax kat tàmbali weer wi te fekk jotut loola bu boobaa dug jaamu yàlla weer wi dugg ba noppi itam nga bañ koo tàmbali loola bu boobaa itam yaa ngi juuyoo ak ndigalu suñu borom tabaraka wa taala moo tax kon duggug weeru koor ñi koy xamee ci ñaari mbir ba ca jëkk mooy ñu gis terutel weer wi weer wi feeñ ñu gis ko suñ borom ne faman shahida minkumu sahra ku teewe ci yéen weer wi mu seeru ko gis ko fal yasumhu na ko woor yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ida raaytumul hilaala su ngeen gisee terutel weer wi weer wi feeñ fa suumoo wóor leen gis googu nag moo xam moo ko gisal boppam wala keneen a ko gis ak kooka fu mu mën a nekk te xibaar ba yegsi ci moom ñu ne gis nañu weer wi loola bu boobaa atte ba day daal di dugg ci moom waaye kooku nga xam ne nag mooy wax ne gis na weer wi ngir ñu mën koo nangul la mu wax dafay nekkub jullit dafay nekk mu kallaf dafay nekk ku am xel dafay nekk koo xam ne wóolu nañu ab xibaaram ngir wóor gu mu wóor ak itam ab gisam bu dëgër boo xam ne xam nañ ne am na gis bu leer boo xam ne war naa mën a gis weer ñaareel ba ci li ñu xamee ne weer wi dugg na mooy chaabaan muy weer wi ñu nekk mat fan weeri fan loolu moom su ko xasee mat jëretul séntu bis ba ca topp moom ci ramadan lay daal di bokk ndax lii di ashahrul xamar yi muy weer yi nga xam ne ci jant ci weer wi lañ ko tënk moom du weesu fanweeri fan ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay doon wala fan weer du ko weesu kon su matee weer rek li muy tekki mooy kon weer bi jeex na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon soomoo li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in qubiya alaykum fa akmilu iddata shaaban salaasin nee na bu ngeen dee um koor na fekk na da ngeen a gis weer wi weeru koor yu feeñ bu ngeen dee wor itam na fekk na da ngeen a gis weeru koor wi feeñ mu ne waxtu woowu ngeen koy séentu nag muy ñaar fukki fan ak juróom ñeent su fekkente ne dafa muuru wala mu xiin wala mu lëndëm ba mësul mënu leen a gis weer wi na ngeen mottali muy weer wi ngeen nekk di baraxlu fanweeri fan loolu moo tax kon danañ ci dégg ne daganul kenn di um koor wala ngay wari di génn ci koor gi lu nga am lu wóor ci ne weer wi gis nañ ko wala nga am lu wor ci ne wéru mat na fan bu dee baraxlu mat na wéri fan kon ci ëlëk sa koor la bu shahru ramadan am na wéri fan kon ci ëlëk sa korita la waaye du dagan ñuy wor bis bo amna dañuy sikki sakka am nañ juróom-ñeenti fan sentu nañ gisunu ñuy nattab la ndax feñ nak feeñut bis bobé ca top kenn duko wor li fekk amu ca lula wor wóor bi sallallahu alayhi wasallam mo ne ko wor bis bo xamne dang koy sikki sakka neena moy nga abal khasim muy moy nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon bo amul lula wor rek eh, bu boba do meuna um koor lula wor la itam nak moy lu bayiko ci xibar bo xamne ci say mbokki julit ay julit ño wax ne gis nañu wer bi lola bu boba te amo ay tektal yo meuna waxe ne ñoñu woruñu kon seenu woru ngay japp ba ba ngay meuna am seenu ñaka wor ndax ab julit li ñi sentu ci mom moy ak doy ak wor ba ba ngay am safan ba waaye ku wax nga ne kooku wóorut kooku wóorul waaye lu la xamal ne wóorut ginaaw amoo ko kon jàppal ne ku wóor la loola tax kon sentu weer wi itam nag dafay war ci ñëpp nag bul jàpp ne kenn moo la koy sentul sentu weer wi ci jaamu yàlla gi la bokk ñu bàyyi ko bañ koo def sax dafay nekk bakkaar sukkandiku ci ay jumtukaay yi ñuy xoole weer wi wala di ko xoole biddiw yi loola nañ ca dimbandikoo waaye duñ ca sukkandikoo wala sikondiku ci ay arminat wala ay calendrier loolu itam kenn du ci sukkandiku pour ne weer wi feeñ na ndax juntukaay yooyu mën nañ la xamal ne weer wi mi ngi fi mais li ñu digle mooy mu feeñ ñu gis ko ndax weer wi mën naa nekk ci asamaan si waaye gisuñu ko bu loola kon bu boobaa ba tey koor gi duggagut ndax dafa am mbir yoo xam ne seen atte mi ngi ci ñu feeñ mi ngi ci ñu feeñ ñu génn loolu doon misaal koy misaal ci doomu aadama doomu aadama fa mu toog am lu nekk ci moom ci sobe waaye sobe soosu fekk génnul amulub atte kolaab lañ koy jàppe jamono bi ngay julli ci sa biir sobee ngi ci waaye sobe soosu kenn du ko compter ndax génnul saa bu ci dara génnee nag loola boobaa amatoog laab dangay war a dem laabali ko kon weer wi mën naa nekk ci asamaan si waaye comme kenn gisu ko kon bu boobaa amagul benn atte bu dee um waraguñoo um bu dee wari itam waraguñoo wari waaye mi ngi tegu ci gis gi liru yatihi alxuraan fa man shahida shahida mooy loo xam da nga koo seede ne ma nga nee nga mën koo seede am maa ñu ne mi ngi fi waaye kenn mën laa wan ne mi ngi nii loola kon bu boobaa atte ba du dugg gannaaw bu saxee nag ne weer wi feeñ na kon kenn ku nekk nag war ngaa xool yow foo ci féete ndax bu boobaa itam nag nit ñi duñu bokk fu ñu féete danañ séddale juróomi xaaj bu boobaa am na ci nit ñi koo xam ne koor dalay daldi war fi saasi nga war a daldi tàmbalee woor mooy koo xam ne jullit la mu kàllaf la am na man-manu woor ci sharia manaa lu koy teree woor ci sharia gaaru ko lu koy teree woor ci aw yaramam itam gaaru ko muy mel ne feebar wala nekk ci tukki kon kooku mooy ki jiitu kooku moom fu ñu feeñ na rek te amul benn ngànt ci yooyu dafa war a tàmbali woor ñaareel ba koo xam ne moom koor waru ko ci tàmbali bi wala sax koor gi war na ko waaye dagat na ci moom mu bañ koo def kooka nag ñaari xaaj la kenn ki mooy koo xam ne dafa nekk ci ab tukki dafa nekk ci tukki te tukki dafa doon lu ñu jàppe ab coono kooku kon bu boobaa bu ko sobee mën naa woor waaye bu ko sobee itam mën naa bañ a woor ka ca des mooy koo xam ne moom dafa feebar feebar boo xam ne itam mënta ànd ak koor gi kooka moom bu boobaa itam moom du woor waaye nag la koy war gannaaw ba mooy ak fay gannaaw bu feebar booba teggi ko ci moom kokuy tukki nag mo xam tukki bu yag la wala tukki bu gatt la mom gannaaw mi ngi ci tukki rek mana na baña wor waye tukki bi rek dañ cey sart mu baña nek tukki bo xamne ne ci duggal bopam ngir ay pexey bañ a woor moo mu dugg ci tukki waye na doon tukki bo xamne rek lu ko dab la lu meunta ñakale te la muy dox itam lu xere anangula lola bu boba teggil nañ ko koor ga waye nak bu koor gi jàllee daf koy fay suñu borom tabaraka wa taala moo wax ne wa man kaana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin uxar koo xam ne dafa feebar feebar bu ko tee woor du dak feebar bu jóg rek nag nga ne mënumaa woor waaye na doon feebar boo xam ne wóor yëgal nga ci sa bopp ne boo wooree doo ko man wala ay fajkat wax nañ na la soo wooree koor gi dana yokk feebar bi wala dana yeexal wér gi nee na kon boobaa na ko bàyyi ba ci yeneeni bis mooy ba koor gi jàll mu doog ko caa fay yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra suñ borom kat ak jàpp ndal la bëgg ci yeen waaye bëggul ci yeen ak jafe ñaareel ba koo xam ne dafa am ngant muy ci ñi nga xam ne ba tey duñu mën a woor mooy xam dafa am ngantul sharia yaramam dara jotu ko mën naa woor waaye nag daf sharia moo ko tere woor loolu mooy jigéen ju gis baax mën naa woor na koor gi wala jigen ju am dom te setagut ñooñu mën nañu wor waaye sharia ci boppam mo téré seenu koor kon ñooñu bu baba ñoom itam fan yoyu duñu wor ba lolé len dal teggiku bu koor ga jàllee ñu fay bis yoyu ñettal bi moy ko xam du wor du fay waye nak la koy war moy itaam moy day joxe ñam loola moy ko xam dafa am ak télé go xam ne ak dañam tëlëg nag mën na nek ak mage dafa dem ba mage lool ba mëna tula wor té mage mom nekul luy wër day gën di yokk rek kon da fay lélé muy fay joxé ñam ak ko xamné dafa fébar fébar bo xamné ne yaakaaruñu ak wëram fébar bo xamné buy continuer la yaakaaruñu ak wëram ñaar ñoñu mom boba duñu wor duñu fay waye dañuy lélé dañuy joxé ñam moy dañuy jox miskin bis bu set lu tollok mudd mudd nak 510 gram lay tollol moo xam ci dugub la wala ci ceeb la waaye bu ne soobee nit ki itam mu joxe ko xaalis loo xam ne nit ki mën na ci jënd lu mu jëfandikoo ci bis bi lu ko mat ndogu ci bis bi bis bu set mu génnee lu mat ndogu jox ko am miskin loola bu boobaa dafay wutu loolu wala sax bu ko soobee itam mu defar aw ñam woo xam ne da woo lim bu tollook lim fan yi mu wóorul ci ay miskin ñu ñëw jëfandikoo ko loola itam bu boobaa day nekk lele ci moom ndax Anas ibnu Malik Euh, radiyallahu anhu bi mu demee ba nekk mag am na ñaari at yoo xam ne wóoratu ko woon waaye daf daan defar aw ñam bu baax daal di woo miskin jox ko ko kon mën naa nat ceeb wala dugub joxe waaye la gën a jàpp ni sax nag ndax loola mën na koo mat ndogu ndax loolu faw mu aajo wa ca leneen lu ca boole kon tibb aw ñam jox ko wala jox ko xaalis boo xam ne na caa defar ndogu loola mooy li gën ci moom bu fekkee ki koy def am ko def ga yi nag mi ngi tollu fa man manam am rek nga xamne mom su duggon fi barab bëgg a dogu la muy laaj lu tolloog palaaj bo muy laaj pour ñu andil ko ko lu toll nona comme man nako nako jox fakir bi miskin ñentel bi nak moy ko xamne mom dara waru ko du wor du fay du lele lola moy ku nekkagul mukallaf muy gone go xamne nekkagul mukallaf wala ko xamne dafa taggo tàggookum xelam dafa nitetul dafa àndatul sagom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yëkkatil nañ xalima ñett kenn duut leen bindal dara kuy nelaw ba ba mu yew ak koo xam ne dañ koo nattu ci feebaru xel ba ba xel ma di dellu siwaat ak koo xam ne gore la ba ba muy mat mu kàllaf waaye teewul bu dee gore la nag sopp nañ ci ay kilifaam ñu koy digal muy jéem a jàng koor gi donte bu wooree ba du ko mën a yeggale sax waaye na koy rek di ko jéem ndax bu ko jéemul bis bu nekkee mu kàllaf dafay jafe ci moom te saxaaba yi daanañ ko def daanañ wooral seeni gone indi leen ca jàkka ja bu ñu demee bay laaj lu ñu lekk sax ñu indi leen ay fowukaay fexe ba jant bi so te du ñu dog seen koor googu loolu itam boroom kër bu nekk ci yii war naa xam ci njabootam kenn ku ne foo ca féete koo ci xam ne gis na ne daa war a woor mu bañ koo jàpp ndalal lu koy tee woor moy japp ndal ndek yaak agn yaak dara baña manki lolou boko defé ñi ña euh bo wutul fekk na man nañu wor sax waye dinañ jëm wut ay ngàtt té bu boba yow makoy joxé di borom kër ga da nga cey am responsabilité juromel ba ci nit ñi batay moy ko koo nak ne nag dañoo woote cib ndax day fay wala ndax day lale loola moy jigen ju tollu digënté ju euh dem ba ne ambu bi mënu ko bolé koor gi mu wala jigéen juy nampal moom itam yëg nampal bi mënu ko boole koor gi dana loru moom ci wala dom ji dana loru mu dog kooku lañu wute ndax day fay wala ndax day lale li gën a dëgër nag mooy day fay su fekkente ne li dal teggiku su ba dogal na mu am wala nampal ba yàlla dogal na mu fer wala dom ji dëgër na ba bu amul lum nampit dana mana a am lum lekk kon boobaa dafa fay koor gi su fekkee loolu dafa jokkaloo nag fu mu jógee ci ëmb rek dugaat ci nàmpal bu jógee ci nàmpal dugaat na ci ëmb nga xam ne amul benn espace bu mën a faye kooku nag kon bu boobaa dafay lele dafay joxe ñam bu boobaa ndax moom dañ koo dugal ci atteb ku feebar lañ ko yor ku feebar bu jàppee ne dana wér day bàyyi su wéree fay waaye su yaakaaree ne du wér nag bu boobaa kon moom dafay mujj di lale kon jigéen jooju itam bu ay koor yu baree baree baree bari naara tagaloo ci boppam yoo xam ne duutu ko mën a fay ndax fu mu jógee ci ëmb rek euh, ma ngay nàmpal nàmpal ba léeg-léeg balaa feral sax bootul ëmbaat te am na ñu muy dal loola bu boobaa kon koor yu bari nar a ci kawam yoo xam ne amul fu mu ko faye koo kon bu boobaa na lele waaye saa yu demee nag ba am waxtu woo xam ne mën na caa fay lu mu ca mën a fey ci bori koor yooyu rek su ko defee mu daal di koy fay ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala bu loo ñu ramadan te defal nu tawfiq nu mën koo woor jamono yi nit ñangi yitté wo fébar ba daanaka day mel yitté wo li la fi taxane ba yitté wo li tax nga man fee ne muy baña yitté wo lu lay tax dundu nit ñi dund leen yittewoo fi mu ne lool té bëgg a nak li tax ñuy dundu doom adama yi li tax ñuy dundu moy ñu jaamu ko motax mu bind leen motax mu ñu andi leen kon nag buñ wo dundu bi bu bëgg a li tax ñuy dundu té moy jaamu yalla loola bu boobaa du ko jar ndax dund bi lu yàgg yàgg yàgg moom day jeex te bu jeexee la lay jariñ mooy li la fi taxawoon a ñëw mooy jaamu suñu borom tabaraka wa taala wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudoon kon nag nañ bàyyi xel bu baax itam jaamu yàlla gii jub di sahru ramadaanil mubaarak di weeru barke di weeru nangu ñaan di weeru jéggal ay bakkaar te lu bari ci li dal nit ñi tey ay bakkaar ko waral te weer a ngi ñëw woo xam ne weeru jéggal bakkaar la kon nag jullit ñi nañ ci profito bu baax a baax اللهم اجعل لنا شهر رمضان شهر خير وبركة وأعدنا فيه على طاعتك وجنبنا طرق معصيتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين